bismillah cay jàmm ja ca Casamance yàlla bu mu yàqu tribune yéene kaay ne en tout cas dara ju bëree bëri day tuuru na ca bi ñoo na gee maar bi taali waaw parce la njëkk day ñetti ci ay doomu aadama ñàkk seenu bakkan allahu akbar ca Bajure nekk ca commune bu ba ñoo na googee waaw ñetti ay jakarta day daanu nañuy mbëkkante benn doomu aadama ñàkk fa bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jàmm lomp gee ay samba surabali nag daal di ca village ga waaw daal di fay rey ñaari doomu aadama la wax daal dina cee bokk nag porte parole bi lee nekkoon tamit secrétaire général MFDC di Abou Elinkine Diatta allahu la ñàkk bakkanam laa la wax le quotidien yéene kaay ne dama ne Elinkine Diatta moomee waaw daal dinañ koy fat day ci këram lañ ko rayee allahu akbar ñi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo yoroon ngànnaay day ca village ba la ñu dugg mu lomb waaw daal di fay rey ñetti doomu aadama nag laa la wax am na ci ñeneen ñoo xam ne tam am nañu ay gaañu-gaañu dee sur quotidien ne en tout cas lay xeeñ ca MFDC ga kuréelu fippi ca Casamance waaw mbir ma neexul de déedéet te gis nga jàmm ji nga xam ne tam maanaam moom la ñu wut ca Casamance koo ga bakkanam ak ca xottu gerte de moom jàmm ja waaw laas ne waa MFDC day song nañu ko MFDC see lañ song laa la wax Abdou Elinkine Diatta waaw daal dinañ koy rey ay balu fetal box sobli moom mi nga xam ne nag moo nekkoon porte parole Abbé Diamecoune Senghor un daal dinañ koy faat moom ñaar ci ay lienam lak laa la wax laay di Bakary Vieux Diatta ak Alpha Coly nañ leen Dakar Times rey bi nga xam ne nag maanaam rey nañ ko Abdou Elinkine Diatta mi le waaw mbir mi daal la muy xeeñ mooy règlement de compte wàllum defante la de defante la de parce que nag ko ko ni ne day ah dikk na ci jamono day ci jamono joo xam ne ci la Salif Sadio daal di tàmbaliwaat nag ay activité am yéeni ne xam nga ci ndorteelu weeru octobre ci 2019 waaw am na ci ay ONG yoo xam ne day dalaloon nañ nag rebelu Casamance yoo yee ci ay hôtel yu neex ca diwaanu Guinée Bissau waaw di leen joxoon xaalis yaa jum wala maa jum ma ne lii moo am laa la wax 24 heures yéen a kaay ne lii am kay benn bàccu MMDC daal dinañ koy éliminer jeex na Moussa Cissé a nee na rey nga xam ne kon rey nañ ko Abdou Elinkine Diatta jamono ji mu dikk nii mën naa na nag ak yàq jàmm ya nga xam ne moom la ñuy wut ca Casamance dëgg la Seydi ne gis nga Elinkine Diatta a doomu Casamance yu bëree bëri nangul nañ ko dëggoom waa ji daa dëggu de fu ko dëgg fekk fa la koy ba sur sa aane dëgg la man kay maa a yeggee ay kaddu Abdou Elinkine Diatta yu mu jëm ndax waa ji dane woon Macky Sall daa war a dem laaj Abdou Diouf laa la wax jàmm ji ñuy wut ci Casamance Robert Sagna lan la ci ban importance la ci am Elinkine Diatta yamu ca kàddoom yi mujj de waaw ndaxte waa ji nee na dama ne wax leen ma ci fanweeri at ak juróom yi Robert Sagna waaw ban solution la indi laa lay wax ni ci coowal Casamance ke ca jamono joo xam ne nag ña ngay rey waa Casamance koo gé suñu politiciens yi ña ngi ca troisième mandat ba laa ilaaha illallaah tey nit ku ñuul nguur critique yéene kaay kan mooy wutu Macky Sall mi lée kenn waxul de déedéet candidat ba ca pale ba ah, kon mënta am troisième mandat laa la wax ñëw constitutionnaliste bee wax de waaw Moustapha Diakhaté ci tribune yéene kaay seen la ko xam laa la wax man ñu dàq maa ñax maa dàq yooyee laa yemale ndax ba may xam Macky Sall amuloon kattanu fale bay dàqe dàq bi nga xam ne ne dàq ne ko nii sori kabaa ak ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo fi nekk di saaga waat ak daa war a dakk Abdoulaye Khouma APR ci évidence yéene kaay waaw nee na ñi nga xam ne ñoo bëgg a wuutu kilifa gi waaye bu ñu làqatu la mu doon wax mooy ñaata at la président bi war a def waaye waxul ci ñaata mandat la fi président bi war a def wal fajri ne gis nga troisième mandat waaw tey may lan moo tax ba Macky Sall mi lée nekk hors jeu mënta nekk candidat la wax hors jeu bokkul saar xam-xama ma ci lool jëm nag ci wàllum constitution nee na Macky Sall mënta nekk candidat 2024 laa la wax xam nga Macky Sall li ko uutee Ablaye Wade Ablaye Wade constitution 1963 bi mënalu ko dara waaye Abdoulaye constitution ba ca 2001 gis nga constitution boo ko changé waaw constitution ba fi nekkoon léppay yàqu loolay dëgg te Macky Sall na constitution 2001 bee ko fal waaye xam nga discours politicien moom jar ca dóor sa doom discours politicien beneen affaire la Jean Charles Biagui day waaw jàngalekat la ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru gëlee ci Walfadjri nee na gis nga nguur gi day waaw war naa jàngatee nag lu nag ci ñàkkum kaaraange gi nga xam ne dal mën ñaa ne en tout cas askan wi daal ña ngay xaar Alpha Condé ak Alassane Dramane Ouattara bu Côte d'Ivoire ak Macky bu Sénégal bi lée Macky Sall du sàggan daal bay jaar ci kaw yi néew nag laa yaakaar mi jiite ndaw yi ci ak waa xale yi réew ci sut sa waaw nee daal bu amee yéene nag amaat ko troisième mandat waaw dañu koy fekk ca pale daal di ko fay génne libération yi ne kaay ne Petro Timba day ah Aliou Sall day dana wuy ji nag attekat diggaatam day ak 2024 waaw parce moom Alioune Sall meeru Guédiawaye ma ngay wut ak ñoo xam ne ci internet bi la ñuy ngir ñu defaraat deram bi deram bi nga xam ne xam coowal pétrole timbee ko yàq l'observateur ne lancement BRT bi tey la Guédiawaye de waaye ñi nga xam ne dañ leen a fas yéene lool maa la waa Liberté 6 day nee nañu ñun moom dañoo jàppee ne ay nit ñu tekkul dara waa Guédiawaye waaw nee na ñun dañoo nekkul ay nit ñoo mer ba daan Amadou Ba Birima Mangara ak Thierry Mamour Diallo Tahirou Sarr ak Sofiko waaw laa la guñ ba léegi weccet de Ousmane Sonko day feeñal nañ ko tamit ca coow la de coowal Aïda Diallo ak Sëñ Saliou Ndeye ah ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci laas waaw nee na Aïda Diallo daal sénégalaise la am na droit ak ay devoir am na sañ-sañ organiser fu ko neex na ko rek box boobu li ne Serigne Saliou Thioune day njiital cantaku nii waaw di doxee source aané sëñ Sall nee na loolee day jeex yéen a kaa gi ne maanaam greffage yeeg dukat yeeg yooyu yëpp day jeex yéen a kaa gi ne cancer de la peau day waaw xeesal bi nekkate da koy indi dee mar day taali la ilaha illallah te yàlla <laughs> waaye gis nga jéeg-jéeg diriyanke jéeg ñagamaar si di ceeb ju sew ji ah, ak lu ñu xeesal xeesal xeesal xeesal xeesal xeesal xeesal buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat xëju fii boo paree mën a la tëjal